Euh, léegi nag dañuy waxtaan ak yéen euh, ci loo xam ne mu ngi jëm ci wàllu Afrique dañuy gëstu ba xam lan moo tee xeetu Afrique doomi Afrique tiim ci doomi waa àddina yépp Afrique ñi fi dëkk waroon a ëppam koom ci mboolem àddina Afrique ñi fi dëkk waroon a mën a toog ci seen suuf te duñ ko génn ñeneen di ñëw di jëggaan si ci ñoom te loolu ànd ak wërsëg bi yàlla def ci suuf si loolu munta nekk loolu lañ bëgg a jàngat tey asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ak ñi nga xam ne yéen a ngi nekk ci Xum eh, TV ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram di ñaan yàlla suñu kàddu fekk leen ci jàmm ñoo ngi nuyu itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci Ahlul Bayti TV ñoo ngi nuyu itam ñi nekk ci urasul irada bi bàyyiwuñu kenn tey nag dañ di indil waxtaan woo xam ne ci Afrique la jëm maanaam Afrique ni ko yàlla bindee ak itam xiwal yi fi yàlla def ak nelawal gi nga xam ne tubaab yi nelawal nañ ko africain yi ba mel ni ñoom ñoo ñu dee ñoo yem mbaa sax ñu dee xaw leen a tane ndax Afrique ak xiwal yi ci yàlla def yëpp africain yi réeri nañu ko xam nga bu dee ci wàllu tolluwaay yi abriya yi Afrique nekk na trente millions huit cent soixante quinze mille quatre cent quinze kilomètres carrés continent africain yëpp boo ko boolee dalay jox trente millions huit cent soixante quinze mille quatre cent quinze kilomètres léegi soo demee nga tollale ko ak Chine Chine mi ngi nekk neuf millions six cent mille kilomètres neuf millions six cent mille kilomètres carrés moom la Chine yaatoo États-Unis mi ngi yaatoo neuf millions huit cent mille kilomètres carrés Europe gépp gépp gépp soo ko boolee mi ngi nekk dix millions dix huit mille kilomètres carrés nga gis ne boo jëlee Chine jël États-Unis d'Amérique jël Europe gépp nga boole leen Afrique moo gën a yaatu ci dënd bi te nag boo seetantalee tubaab yi bu ñu ñuy jàngal Afrique dañ koy tuutil dañ koy ñàkkal fayda mais bu ñuy dessin bu ñuy dessin continent africain sax dañ koy def dessin bu tuuti bu yemamaay te boo boole Chine ak États-Unis d'Amérique ak Europe yëpp nga boole leen nga dàmbale leen Afrique ku gën a yaatu te carte Afrique soo ko xoolee dañ koy xatal tuutil ko ndawal ko mel ni dañoo bëgg a gëmloo ne yéen ah tekkiwuleen dara loolu lépp loolu dañ koo def pour ñu mën a raxas suñuy xel raxas suñuy yuur wan ñu ne nit ñu tekkiwul dara ngeen ay walla kaana ngeen ay nit ñu niiw doole ngeen ci ruq bu ndaw ngeen dëkk ci àddina bi te Afrique mën naa boole Chine ak États-Unis d'Amérique ak Europe yëpp ëpp leen bu ñu demee ci wàllu koom-koom Afrique buñ dajalee àddina bi yépp suuf si nga xam ne manees na koo bay muy meññ ay meññeef di ñor ci àddina bi yépp buñ ko dajalee soixante pour cent yi Afrique la nekk quarante yi moo la waa àddina bi yépp séddoo suuf si ñu mën a bay suuf si nga xam ne manes na koo béy laa wax muy génn ay meññeef boo ko boolee àddina bi fi ñu mën a béy fépp muy mbéyteef gi ci àddina mbéyteef googu soixante pour cent yi Afrique rek la ne àddina bi quarante pour cent la ñu am séddoo ko ñoom ñëpp te Afrique dëkk ci jëggaani faw faw faw faw faw faw te boo boolee mboolem terrain bi ñu mën a béy ci àddina bépp nga boole ko soixante pour cent yi Afrique la féetee téeméer bu ca nekk juróom benn fukk ya ci Afrique la féetee te Afrique googu mënuñoo béy lu luñ dundee ba dëkk ci jëggaan yi ci ñi nga xam ne quarante pour cent la ñuy séddoo ñoom waa àddina bi yépp bu loolu jàllee maanaam matière première yi nga xam ne moom la adduna bi soxla boo dajalee mboolem ni mu toll ci adduna quatre-vingt-dix pour cent yi mi ngi ci continent africain yi maanaam mbelli suuf yi nga xam ne moom la doomu aadama yi di woo ci seen dund soo ko boolee lépp ba mu daj téeméer bu nekk juróom-ñeent fukk ba mi ngi ci suufu africain yi te Afrique gën a lool bu fekkente ni or la or bi ñuy gas ci àddina bi yëpp nga xam ne moo am ci suufu àddina bi yëpp soo ko seetloo nga dajale li nekk ci àddina ci or lépp quarante pour cent yi ci Afrique rek la ne téeméer bu ca nekk ñeent fukk ba Afrique rek moo ko féete woo juróom-benn fukk ya moom la Europe Asie Amérique Australie séddoo ba léegi jamaa bi am ci àddina bi soo ko boolee lépp lépp lépp luy jamaa ci àddina bi 33 pour cent yi ci Afrique la nekk téeméer boo mandaxe ci jamaa fanweer yi ak ñett ci Afrique la nekk mu des juróom benn fukk ak juróom ñaar moom la Asie Europe Amérique ak Australie séddoo waaye Afrique fanweer ba ñett moom dong moo ko féetewoo ci jamono ba léegi Afrique am na benn matière bu ñuy wax benn mbelli mu ñuy wax lépp loo xam ne lii des na ko liggéey ci wàllu téléphone walla li ñuy defar ci wàllu électronique lépp ci coltan lañ koy defar coltan boobu boo xoolee Afrique quatre-vingt pour cent moom la ci am téeméer bu nekk juróom-ñetti fukk ba mi ngi ci Afrique fukk ya moo la waa àddina bi yëpp séddoo te ba léegi africain yi ñu ngi nekk ay ndóol li ñuy koo belt li ñuy wax li ñuy wax koo belt nga xam ne koo belt moom ci la ñuy defar batterie yi taal oto yi ci kaw belt lañ koy defar Afrique am na ci soixante pour cent soixante pour cent la ci am kaw belt boo ci wàññi juróom benn fukk yi yëpp ci Afrique la nekk te mooy defar batterie oto yeeg yi demee noonu petrol Afrique ëppale wuñu leen ko boo ko boolee gaz Afrique ëppale wuñu leen ko soo ko boolee ba léegi bu fekkente ni wàllu jël la Namibia moom moo am tefes gi ëpp la jën ci àddina bi yépp te yeneen yeneen yi yeneen dëkk africain yi ñëwaguñu waaye Namibia rek ak tefesam moo ëpple la ci àddina bi yëpp te yeneen yeneen dëkki africain yi ñëwagul Afrique am na mangané kenn ëppalewu koko Afrique am na fer kenn ëppalewu koko Afrique am na bois kenn ëppalewu koko léegi boo xoolee yaatuwaayu Afrique nga xam ne mat na ñetti yoon Chine ak Europe gépp ak États-Unis nga boole leen seen yaatuwaay Afrique gën na leen a yaatu ñetti yoon ndax Afrique ne naa la trente millions huit cent soixante quinze mille quatre cent quinze kilomètres carrés moo di dillu Afrique noonu la yaatoo ñu dem nag ci nit ñi fi dëkk tubaab bi gëmloo ñu ne da ngeen bari ba xëjatu leen ci seen continent bi da ngeen a bari ba seen continent bi mënatu la produire lu ngeen mën a dundee Afrique soo ko boolee lépp li fi nekk ci ay mbindeef un milliard trois cent millions la Chine rek am na milliard quatre cent millions boo boolee Chine ak Europe ak Amérique ñoom ñëpp ñu nekk benn suuf Afrique ëppee na ko ñetti yoon ñetti yoon la ko Afrique ëpp ci ab yaatuwaay te Chine dong dong boo demee ci euh, ci population bi Chine kese am na un milliard quatre cent millions de personnes Afrique gépp am un milliard trois cent millions te boo boolee Chine ak Europe ak États-Unis d'Amérique ak Afrique da di ëppee ñeenti yoon ñetti yoon chinois yi un milliard quatre cent lañu dëkk ci suuf soo xam ne mi ngi yaatoo neuf millions six cent mille kilomètres africains yi nag ñoom un milliard trois cent millions lañu dëkk ci trente millions huit cent soixante quinze mille quatre cent quinze kilomètres carrés chinois yi mën a béy ci seenam réew ba dañu ko jaay si ci wàllu dund ñun waa Afrique ndax loolu ci xalaat la bokk ndax lool ci xalaat la bokk loolu bokkul ci xalaat nga xam ne boo ko xoolee daanaka Afrique àll bu kenn dëkkul la waaw àll bu kenn dëkkul la kay àll bu ne yàmbalang la te kenn dëkku fi ndax li tax chinois yi mën a nekk neuf millions six cent mille africains yi ah non chinois yi mën a nekk neuf mille man nekk un milliard cent millions ci ay nit un milliard quatre cent millions la chinois yi doon seen population neuf millions six cent mille africains yi nekk un milliard trois cent millions nga xam ne chinois yi ëpp nañu africains yi cent millions de personnes chinois seen suuf nekk neuf millions six cent mille kilomètres carrés africains seen suuf nekk trente millions huit cent soixante quinze mille quatre cent quinze kilomètres carrés te Afrique te chinois yi mën a dundal seen bopp africains yi mënuñoo dundal seen bopp ndax loolu ci xalaat la bokk loolu bokkul ci xalaat te boo xoolee Afrique ni mu toll ak li fi nekk ci ay doomu aadama naan Afrique kenn dëkku fii am àll la waxuma nag suuf si nga xam ne moom la ñuy bay li nga Congo gi ñoo Congo Congo démocratique Congo googu rek suufam mën naa bay lu dundal Afrique jëpp Congo sax suufam mënees na cee lu dundal àddina bi yëpp tubaab yaa ngi def ay corona def ay guerre di def ay euh, Ebola di def ay planning familial lu ñu dugg ci te nee nañu li tax ñu di ko def mooy dañoo ragal xiif rey te mbënd mi mu ñuy wax Congo rek bu ñu ko béyee normal suufam waxuma dundal Afrique waaye mën naa dundal àddina bi yëpp yëpp te mbëndam réew rek ci biir Afrique moom la Congo googu am na ay dex yoo xam ne buñ ci montoon ay barrage def ci ay tribune dina mën a jox courant Afrique gépp gépp gépp gépp ba mu daj ndaxi Congo yi bu ci defoon ay barrage ci tribune yi génne courant mën naa jox Afrique gépp gépp gépp gépp courant ba Afrique daj mennam Congo waaye nag li problème bi mooy Occident bi ak ñi leen di jàppale ak lenn ci doomu fowukaay yi nga xam ne nee nañu ay président lañu mooy séeta bal wala doomu anka saabal yi ñuy naxe gone yi président africain yi dañoo lay doomu bi ak ñi yore pouvoir ci ne ay doomu anka saabal doomu fowukaay ñoom ñooy organiser organiser boo xam ne mooy créer africain yi ak ndóol ak ak ñàkk ak ak opp Afrique boo fa demee boo demee ci Afrique te lii sama métier la mooy wàllu faj Afrique am na trente mille arbu yu mën a faj Afrique li fi mën a génne ci garab buy faj doomu aadama fanweeri julli façon ci ay garab yoo xam ne mën naa faj feebar te garab yooyu européens yi ak américains yi ñu ngi koy jël dem di ko recherche ci seeni dëkk ngir mañ cee jariñu ñoom waaye ñun ñi ko moom mu nekk suñu dëkk mënuñu cee jariñu te fanweeri junni xeeti garab yu mën a faj doomu aadama am na ci Afrique monde entier boo limee jeunes yi fi nekk muy xale yu góor yi di waxambaane yi nee nañu bu ñu amee demee deux mille cinquante waxambaane yi nekk ay xale yu diggu dóomu nekk seen diggu doole ci Afrique danañ mat deux milliards cinq cent millions loolu nag moom la tubaab bi mënut a nangoo dégg bu ñu demee deux mille cinquante Afrique dana am deux milliards cinq cent millions de jeunes yoo xam ne ay jeunes lañ di ñu ay màgget loolu nag moo tax tubaab bi taxaw ci def leen ay buy def leen ay góor jigéen def leen nit ñi tekkiwul dara waaye doomi Afrique yi ñoo war a ko xam seen bopp yàlla tax xaw yàlla ya'lamuun lim boobu nga xam ne moom la xool ne africains yi danañ ko am ci ay jeunes buñ demee deux mille cinquante nag ak bari googu mu bari moo waral ñoo ngi créé ay virus yoo xam ne mën na jeexal àddina faagaagal ko te biñ fi indee corona dañ doon trois millions africains danañ ca dee yàlla weddi ko loolu amut milliard bu tegal genn wàll boobu nga xam ne xalaat nañ ne buñ demee deux mille cinquante goney africain yi danañ ko mat loolu mooy secret biñ leen def loo bi tax ñu leen di def politique gu Barsàq mbaa Barcelona ñaata téeméeri junniy jeunes africain ñoo sóobu ci dex gi géej gi dañuy dem Europe lab jën lekk leen te képp ku jóg di wax lu delloo si waat gone yooyu ñu dëgal la ci néeg yoo dëkkul ku leen ne loolu xaru la ñu dëgal la ci néeg yoo dëkkul benn nit six cent millions benn nit six cent milliards benn nit mille milliards am na fii ci Afrique ci alal yoo xam ne ñëpp ko bokk te ñu leen di anesthésie di leen nelawal ne dara amu fi yu demee noonu nag moo jar bakkan ndax taqaafuuna al mawt wala mawtu xayrun lakum min al fitna yonent bi nee di ragal dee waaye fitna moom eh, dee ko gën al fitnatu min al qatli la yàlla wax ci alquran yàlla yàlla teel lu ci sellal